bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil aalamin wassalaatu wassalaamu ala asrafi al anbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain allahumma axrijna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 waaye ñaan ko itam mu jéggal ñu sunuy rëcc rëcc ñaan ko mu def jàmm ci réew mi def ko ci réew yi ñu wër waaye saafaraal ñu suñu tawati yaram saafaraal ñu it suñ tawati xol ndax feebaru xol yi mooy feebaru jikko yu baaxut feebaru yaram moom léeg bu dalee nit moom ci boppam day yomb mu yëg ko ay mbokkam yëg ko buñ ko yóbboo buñ ko yóbboo hôpital docteur yi man koo xool ñoom docteur Ana Dia ne lii moo ko dal waaye dafa am feebar yoo xam ne nag moom feebaru jikko la dafa mel ne boo doon wax bu yàlla sañoon da naan bu yàlla sañoon feebar yooyu wér moo tax mu yónni yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye mooy feebar yi nga xam ne lu mu gën di bari àdduna di gën di yàqu moo tax bi muy tagg ku baax ka alayhi salaatu wasalaam mu ne ko woon wa innaka la ala xuluqin azim yow day yaay ki nga xam ne yaa gën rafet jikko alayhi salaatu wasalaam mu nekk modèle ci lépp lu mën a doon moo tax bu jamono tollee fenn fi ab julit daa war a delluwaat boppam ci njàngalem yonent bi alayhi salaatu salaam xaw tuuti ko nga ne mësu caa war a jóg waaye nag mooy delluwaay bi ndax alxuraan daa wax ne bo ngeen réeroo ci am mbir na ngeen ko delloo ci yàlla akub yonentam faruduhu ilallahi wa rasulihi maanaam su fekkee dama ne yëf nii la war a demee nga ne ma déedéet warta demee nii nii la war a demee ma ne la déet warta demee nii nii la war a demee lislaam nee na nañ ko delloo ci alquran nañ ko delloo ci njàngalem yonent bi loolu mooy constitution bi nga xamante ne moom la yàlla wax ne mooy delluwaay ba moo tax bu boobaa delluwaay yooyu yi nga xamante ne moom la ñuy am ba ci ñun yi ñu rabbu buñ ko rabbee te saa yu ñu neexee nappaaje ko wéeruwaay liñ dut amati ndax mënuñoo ñàkk di réeroo ci àdduna moom incha allahu taala li fee jant bee ngi fenk di so ay nit di saxi bopp ki tànk di dund ci kaw suuf day am yuñ dëppoo day am yuñ wuute yi nga xam ne dañ cee dëppoo fa lillahi alhamdu wa shukru yi nga xam ne dañ cee wuute day am luy tox ci diggante bi mooy tax jàmm mën a am loolu la ñuy tudde ay loi léeg-léeg moom la ñuy tudde ay charte yoo xamante ne nii moo ŋànk yëf ya ak yi nga xam ne moom lay àndal yëpp bu dee ci réew mi yooyu yëpp ñu am luñ teg ko gën a kawe ca kaw tudde ko ab constitution àdduna nag moom daa yàggut àdduna moom àdduna lu gàtt gàtt la lu ñàkk solo la waaye dafa mën a naxaate dafa mën a bu buñ la ko doon misaal dañ ñaan la bu doon nita danga naan àdduna màggan na baras bu doon àdduna lu ñuy wane sikkam la danga naan feebar yëpp dal na ko àddunaa ngi xasaw xunn nga xam ne medd ma gën a xeeñ xet ga gën a naqari àddunaa ko gën a xasaw ak xet waaye nag àdduna daa mën a puudaru day makki yow defaru Euh, euh, euh, ba ba nga xam ne bu ñëwee di la rogo jeeroo ki def yëf boo moytuwul nga bàyyi yëpp topp nga bàyyi yëpp topp ko waaye mbugal la tilka daarul axiratu najcaluhaa lilladina laa yuriduuna culuwan fi l ardi wala fasaada wal caaqibatu lil muttaqin yal nañu ci yàlla boole ñi nga xamante ne dañoo am jom ñi nga xam ne dañoo bàyyi xel seen borom subhanahu wa taala ku am jom da ngay nangoo wéet ci dëgg donte yow dong yaa ca nekk ku am jom da ngay nangoo wéet ci dëgg ku am jom da ngay nangoo wéet ci dëgg ku am jom daf lay jural da ngay bari looy jomb waaw ku am jom léeg-léeg day nangoo bàyyi lu lu lu neex ci moom maanaam mbir dana ñëw neex ci bakkanam doyalu ci waaye joma tax mu bàyyi ko yàlla xam na ne am na ñoo xamante ne ba ñuy génn ci mbir mbir mooma menn mbir ci mbiri àdduna yi bu doon bànneex rek la duñ ca génn waaye seen joma ca génnee dañoo yëg ne nekkatul seen place ñu génn ca léeg mu nekk ànd léeg-léeg mu nekk ab sëy nañ ma baal léeg mu nekk ab sëy léeg mu nekk ak kuréel léeg-léeg sax mu nekk ab daayira léeg mu nekk léeg-léeg mu nekk ba agsi ci ndomb ak guñ la man di takkal léeg as gor da daan wax ne jomb na maa def nangam nga xam ne jom da koy yóbbu ci mu far mu far teggi loola teg na le bu àdduna demee ba nit fu mu toll foofu ñu ne ko bu doon yow a doo def nangam bu doon yow a nga def nangam ndax xamoo intérêt yi ci nekk kenn ku nekk di daw ci ginnaaw intérêt boppam àdduna booba ku fay dund yaa ngi dund ci dundin woo xam ne risque mënatu ko weesu moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ko ci xadis ba nga xam ne abi hurayra nettali na ko démb indi woon naa beneen xadis bu yéeme waaye tey beneen ñi nii boo xam ne yonent bi daa wax ne innakum sa taxrisuuna ala al imaara wa sa takuunu nadaamatan yowmal xiyaama nee na day yéen a ngi nii xir lool xir lool ci jiite xir lool ci jiite maanaam bëgg falu jaral leen lu ne waaw bëgg a falu jaral leen lu ne ñi falu ba noppi folle ko ku leen rey lañ yemale coono yi ñekk yëpp looloo ñu ko yóbbee coono yi ñekk yëpp yu looloo ñu ko yóbbee waaw ña falu yemale folle ko àdduna ju tukki ñi am ci ñoo xamante ne yemale faloog àdduna ju tukki yonent bi nee na kon da ngeen a xër da ko bëgg da ngeen a xër lool ngeen ci li nga xamante ne nii mooy ak pal xër ngeen ci xër ngeen ci xër ngeen ci ak pal waaw xiraay boo xamante ne léeg-léeg mu jural nit wax lu du dëgg ndax bëgg a falu léeg-léeg mu nit jaral nit joxe alal di neexalaate ndax bëgg falu léeg-léeg mu jaral nit sosal nit ndax bëgg a falu waaye bëgg a falu gi mën nga koo déggee it bañ a folleeku man nga koo déggee it bañ a folleeku koo xam ne wax nga lu ne ba bañu ñu fal la waaye ba nga faloo bañ ba ñu fal la yàlla faloon yëpp pare nga pour màbb yëpp ndax def ak sa ak sa pal def ak sa pal sa waxi tey ju sa sa jëfi suba mën na ko weddi waaye noppi na noppi nga nag ngir logg loggal ko ak ñu la ko logg loggalle li feeg ña nga cey gis seen intérêt bopp yonent bi nee na kon yéen da ngeen a xër da ngeen a xër ci eh, al nee na te ak pal moom pertaange rek lay jur ak rëccu ëllëg yow mal xiyaam waaw rëccu rëccu lay jur ak pertange xanaa xamoo ne bëccëgub démb bii ñu yendu nga xamante ne ñu baree baree bari ñi ngi doon liggéey ci seen connexion internet ñu yendu koo coupé ndax ay mbir yoo xamante ni nii la ca ëpp du mbiri askan wi du mbir mi soxal askan wi waaye mbiri ak kuréel la ay kuréel yu ndaw la ci seen biir ëllëg yow mal xiyaam yàlla dana ko laaj yàlla dana ko laaj responsable bi nga xamante ne moo gàddu responsabilité boobu te mooy njiitu réew mi ëllëg yow mal xiyaam suñ borom dana ko taxawal ne ko bëccëg sàngam xale ya waroon a dem jàngi te jàngi wuñu woon lan moo xewoon ci réew mi ba nit ña tiit ba ñemewuñoo jàngi yàlla dana taxawal président laaj ko ko mu tontu yàlla dana ko laaj ne ko Euh, ñi nga xamante ne nii maanaam lépp loo xamante ne gàllankoor nañ ko ci aw xeet rek ka jiite ëllëg yomal xiyaam suñ borom dana ko laaj bo boobaa nag mu lay waaw boobaa mu lay waaw ñun tam ñu taxaw nag bu layee ba noppi ñu ne ah nii de la demee woon wala ñu ne demeewul woon nii te fekk na yàlla xam na lépp kon euh, nattu la nattu la moo tax ki nga xamante ne day laaj sax ak pal bëggu ko bëggu ko lool. ba nga xamante ne da koo da koo bëgg bam jaral ko lu ne l'islam daan bañ ne ne kooku bu kenn fal waaw l'islam daan bañ kooku doon koo xamante ne ku ñu fal la ndax falu dafa mel ne dafa neex waaye folleeku dafa metti <laughs> waaw folleeku dafa metti sukuraat léeg-léeg kenn nit dana tëdd moom dong di sukuraat waaye léeg-léeg nag ab nation bu lëmm day mel ne ak nguurug lëmm ñooy sukuraat ab système ak képp koo xam ne laal na ca système ba xadis boobu ma jàng leegi am na beneen riwaaya boo xam ne yonent bi dafa wax ne yéen a ngi xiir lool ci li nga xam ne mooy nguur alal imaara wa sa takunu nadaama yowmal xiyaama te nguur ak pal réccu lay doon ëllëg yowmal xiyaam war a taxaw juróomi at ya nga jiite woon Sénégal wala fukki at ya nga jiite woon Sénégal bu fekkee am na ñu tëdd ca kaso ya te fekk defuñu dara waaye yaa leen tëj danga ko leeral li may wax nag ñamatoon ay njiit ñoom dañ ko daan sóoraale ñamatoon ay njiit dañ ko daan sóoraale Seydina Omar ibnul Xataab radiallahu anhu kero ba mu wutoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bis na tey de bu ak till fàddoon aw bëy wala kéwél ca Irak suñ borom dana ma ko laaj bu yomal xiyaamee dana ne Omar lu tax organise woo woon foore bi ba till yi di fàddante ci seen biir waaw wax ne bu nit doon jéggi ca pont ba ca Irak fakkastalut dàllam dagg ëllëg suñ borom dana ma ko laaj dana ne ma lu tax biñ la falee dénk la njiitul jullit ñi góorgóorlu woo ba defaral leen ay yoon ba loola doo am ma ne ñun nag suñu njiit kon lan lañ leen di laaj ëllëg yow mal xiyaam suñu njiit lan lañ leen di laaj ak ak lan lañ daw jëm ak ki lan lañ daw jëm waxuma man ki falu dansé bi mu am waaye ki falu ñi daw jëm ci moom rek dansé bi ñu am ëpp na ndax fi mu ne tax na am réew dana toll foo xamante ne ñëpp ay soxla wallu waaye léeg-léeg nga yaakaar kàddu yu bari te doo leen dégg ndax ndax ndax yu bari ndax yu bari moo tax boo demee ci silkul jawaahir yi Serigne Touba doon ca wax ne dee leen gëj kër buur di nett li waxi boroom xam-xam ya ndax ne woon na xaritoo ak ñoom boo ko defee ñu jox la ci li nga yor ci liñ yor yow nga jox leen ci li nga yor ñu ne ñoom luñ yor luñ lay jox mu ne alal lañ lay jox dañ lay jox ay avantages yoo xamante ne yàlla xam na ne buñ la ko joxul woon nga am ko buñ la ko joxul woon boo góorgóorloo am ko ndax loolu mooy mérite loolu mooy mérite man de damaa gëm ne nit ki li nekk wërsëgam tam war cee jot loolu dana ci jot li ci am solo mooy na ko wut nag. ci wutin wu ànd ak dignité na ko wut ci wutin wu ànd ak ab dayo te am na lu gën alal ëpp ko doole fuuf léeg-léeg mooy fonkeel ak wàccuwaay bi nga xamante ne nit am na ko ci xolu nit ñi ku ñu wooyee kilifa am na ko ci xolu ñoom yilif nga xam ne loo laaj ñu taxaw ci seen kamtalaayal kàttan boo yàkkamtee ba xeeb loola ba yóotu lu nguur di xoy ak xoymat maanaam fàtte ak njuumte ak ay yëf-yëf yaaf ay yëf-yëfaan nga lay tàmbulee gaar moo tax sëriñ bi ne woon bu boobaa ñoom loolu lañ lay jox yow it nga jox leen ñu ne ko loo leen di jox ñu ne sa diine nga leen di jox boo demee ci téere bii may wax di silkul jawaahir yi àgg na ca ne booy toog ak ñoom danga gis loo waroon ne wax ne déet bu yàggee dootoo waxati déet bu yàggee da nga waxati da nga wax dootoo waxati déet du garaawati ci yow seenug tooñ dootu garaawati ci yow seenug jalgati ay luwaa dootu garaawati ci yow sinu jàpp tëj kaso sax dootu garaawate ci yow yàlla xam na ne léeg-léeg nga waxtaan ak kuñ naan la nitu système la wala noonu ñu koy waxe mu ne la non euh, nguur moom mm, am na ci yoo xam ne ku ko def dañ laa war a tëj maanaam tëj nga xam ne day mel ne baatu dañ lay tëj ak tëj nañ ko moom affaire bu simple la bu banalisé wu la bu oyof la ci làmmiñu nit ki bu oyof la ci làmmiñu nit ki yàlla xam na ko xam naa bu fekkente ne am na lu nit def ñu war koo tëjit day mbir la moo xamante ne du mbir moo xam ne mbir mu oyof la moo xamante ne ni ko làmmiñ ji tudd mu oyofe noonu noonu lañ koy xañee nit ki ak njabootam xañe ko léppam moo tax mu ne xër ngeen ci lool ci ak pal pii ci àdduna waaye ëllëg yowmal xiyaam nag la muy jur mooy rëccu ëllëg yowmal xiyaam la muy jur mooy rëccu wa sa takunu nadaama yowmal xiyaama dana nekk ak rëccu ëllëg yowmal xiyaam waaw ndax gëm nañ yow mal xiyaam ndax gëm nañ ne danañ dekki waaw suñ téeree jëf yi maa ngi dégg député bu koy wax ndeysaan sama wayjur wale alaaji gay wooma yal na ko yàlla yokku wér man soxna soxna xaw ma nu mu tudd waaye discours am yi ci assemblée bi tam koy booyeleeg aay yeeg addis yi wax jooju ni mu safe xorom te doon wax ju naqaree weddi ak fu mu mën a far ndax eh, ku wax wax yàlla wàcc nga ku wax wax yàlla wàcc nga waaye yàlla xam na ne kenn ku nekk ci ñun bu gëmee ne ëllëg yowmal xiyaam dana dekki ñu jël téere yi jëfam teg ko ci loxoom yàlla buñ fekk ci sa téere yi wax joo xam ne dañ laa fayoon rek ngir nga waxal ko nit dañ laa fayoon rek ngir nga tuumaal nit yàq ab deram yàq ab wax ba ne xaaw yàlla buñ la fekk ngay wax wax joo xamante ne ay marché nga am wala da am mbokk mu nekk ci nguur wala da am loo séddu wala dara loolu nga bëgg a défendre bam jaral la loolu loolu day kum dal da nga danga nga da nga réccu da gi dana am réccu gi dana am boobaa réccu gi dana am ba nga ne su ma yëgoon ci àdduna ma doon dunde ay këyit diyeeyi bant te yow mal xiyaam ma bokk ci ñi nga xam ne ñoo fi gën a tedd waaw ndax euh, teraange yow mal xiyaam kenn da ko dud weccoo bànneexu àdduna ndax dafa gàtt bànneex bu éphémère la lu gàtt-gàtt la lu tuuti la lu tuuti la te luñ la mën a xëllantoo jëru ko luñ la mën a xëllantoo yàlla xam na ne jëru ko yàlla xam na ne jëru ko moo tax eh, eh, aay ji ma jàngoon léegi wal aqibatu lil muttaqin ki nga xam ne dafa bëgg a bokk ca ñoo ñee ragal yàlla te góorgóorlu ca taxawaay boobee faaw mu am pas-pas nag faaw mu am ak dogu faaw nga nangoo muñ faaw nga nangoo muñ buñ la xëbalee ndax dinañ la xëbal waxoon naa ko léeg nga noppi ci waxtaan sax ñu xëbal la envoyé la message mën naa doon ab soppe maa ngi leen di jaajëfal ñoom ñëpp ci ah wax ji de nangam moytul moytul ndax cofeel rek ndax cofel rek am koo xam ne moom dalay dalay xëbal maanaam dalay xupp lay xup am koo xam ne day jàpp ne dañ laa war a xañ nangam wala bu ñuy joxe nangam xëy na kon de yow doo ca am waaye loola moom lan la loola moom lan la loola lu mu war a doon lu mu war a doon lu war a yàq addunay nit ëllëg yomal xiyaam ku gëm ne da nga am na taxawaay boo xam ne moom ngay taxawee waaye ma ne laataa diine ji ñëw sax ñun ba nga xamante ni dañu daan tudd di ñu tudde ay ceddo nit da daan am lum daan jomb as gor da daan am lum daan jomb waaw mag ñi dañ daan wax ne man de luy lekkus gor su ma séenee ŋaa ñu ne loo ci jublu mu ne du ma fecci kóllëre du ma wor du ma wax muy dañ duma wax muy dañ buñ masaana waaj bëgg a dem ca xare ya nga xamante ne ca guddi ga dañuy xas kenn ku ne la nga wax bu wax ja naree teggeeku dee moo la ko gënal yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na li gën a yées ci àdduna mooy kilifa guy fen njabootam maanaam kilifa gu wax njabootam lu du dëgg ndax li muy yàq ci ab société loola dafa metti xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yéen de yéen a ngi xër ci bëgg ak nguur yéen a ngi xër ci bëgg ko bëggu fal jaral na leen lu ne jaral na leen lu ne nomee nañ ma nangam rek ak feet nga koy def te boo yëgoon responsable yi ci nekk dañ laa war a yërëm ku la seen rek da laa war a yërëm fal nañ la yaa jiite njàng mi ku la seen war na laa yërëm ndax ku jàngut ci réew mi yàlla dana la ko laaj ëllëg yow ma la xiyaam fal nañ la yaa jiite paj mi dañ laa war a yërëm ndax lu manqué ci paj mi te muy sag càggante ëllëg yow ma la xiyaam suñ borom subhaanahu wa dana la ko laaj fal nañ la yaa jiite réew ma ku la gis war na laa yërëm ndax ku waroon a joti àqam te jotu ca boo ko jëlee def ko sa bopp di ca fayu di ca lebley bor ak a fayi bor di ca xool ku la ak ku la lu ñëpp bokk am ñu ko féete woo bàyyi ña ca def ëllëg yowmal xiyaam suñ borom dana la ko laaj te koo xañi àqam fii ci àdduna ba yàq ak dundam àdduna mu yàq sag dund yowmal xiyaam waaw koo yàq ak dundam àdduna dana yàq sag dund yowmal xiyaam ma wax la ko tey te ñaata nit nag la seenug dund yàqu ci àdduna te politique ko yàq ñaata nit la seenug dund yàq ci àdduna te politique ko yàq politique bi yóbbu na kilifa ga gën a mag tey góorgóorlu kum bokkalut ak làng mën na koo génneel loo xamante ne mënoon na koo yóbbaale bàmmeel man waxuma sax waajaa def ak difut waaye loola mbiram la woon doon woon mbirum penc mi kon réccu lay indi ëllëg yowmal xiyaam yonent bi alayhi salaam wasalaam yàllaa ko yónni yàllaa ko yónni tax waxam ji lépp daa nuroog ñun ba nga xam ne ñun kon dañoo bokk ci ñim doon waxal mu ne nguur fa ni'mal murdi'a wa bi'satil fatima waaw nee na nguur dafa neex dafa neex ci kuy nàmp dafa neex ba mel ne koo xam ne day nàmp <laughs> dafa neex waaye dafa méttee méttee méttee métti ba mel ne feral waaw feral maanaam ki toll ci nàmp seex di nàmp day yaakaar ne nàmp doo nga fi nekk moom tufeeg mis weeg leneen lu man di doon yoonam nekku ci loolaa neex ca moom waaw ki ne ci nguur foofu lay nekk a nguur gi day neex lool yëf yi neex lool mu nekk ca lool rawatina bu yëgul responsabilité yi rawatina bu yëgul responsabilité yi gàllu ci loosam waaw bu ko yëgee nag du du neexee noonu bu ko yëgee du neexee noonu ndax sidna Omar ibnu Abdul Aziz rahimahullah wax nañ ne keroog ba mu nekkee buur daa mujj dafa jeex takk takk takk takk takk ndax di xalaat responsabilité yi mu yoroon waaw doonut koo xam ne ca la gën a yaram wa gën a leer mu gën a belli gën a mën a sañse gën a mën a nangam déedéet waaye da ko yóbbee ci ak tumuranke yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ki ne ci nguur nguur gi day neex ci moom ba mel ne day nàmp waaye bu nguur gi jeex day mel ne kuñ feral day mel ne kuñ feral moo tax ku waajalut loolu nguur guy jeex ak ndof la lay def ak ndof la lay def da nga yaakaar ne bu jeexee nga torox danga nga yaakaar ne bu jeexee sa àdduna tukki te nit daa war di xool ci ginnaawam daa war di xool ci ginnaawam di xool fa nga jógee ba fii nga agsi ak li sa kanam toogu yi nga toog ay nit a fi toogoon jóg nga toogu fi te it da ngay jóg ñeneen toog fi kon di xool loola itam ci am solo la bokk yéen a ngi xër jëm ci nguur waaye rëccu lay indi ëllëg yowmal am rëccu lay indi ëllëg yowmal xiyaam fa ni'mal murda wa bi'satil eh, fatima waaw dafa neex ba mel ne koo xam ne day nàmp waaye nag dafa metti lool ci buy jeex ba mel ne gone goo xamante ne dañ koy feral kon xéer googu nga xamante ne dañ koy xeer jëm ko ci xéer gi nga xam ne dañ ciy jë dañ ciy xéer jëm ci man ngaa wax ne mooy ci post ci post jiite yépp waaye day dem ba ci al imaara al uzma te boo ko yóbbu mooy ak eh, ci suñu réew yi nekk président ak ya nga xam ne moo ci aju waaye fi mu ne ba ci njiit yu ndaw ndawaan yi sax folli leen problème la waxuma ak nag réew ak ya nga xam ne moo ci aju rawat na koo xamante ne day gis ay avantage ba noppi lama ma waxoon démb am ñu la wër di la jay am ñu la wër di la jay te waxuñ la te waxuñ la dëgg réew mi am na ñoo xamante ne eh, politique gu ñu maanaam dem ci benn mitin am na ñoo xam ne jënduñu jënduñu kaat membre benn parti am na ñoo xam ne sax yi fi jaaroon ci ginnaaw ci ay manifestation ak lu man di xew ñoom dañoo toog jàpp seen jàmbur waaye nag dañ leen a waxoon ne leen bu ngeen demee ba ci weeru février bu amee ñaar fukki fan ak juróom da ngeen di dem wate bu boobaa candidat yi danañ campagne ngeen tànn ci ñoom kenn nga xam ne am na ñoo xam ne kat am na lu leen naqari woon waaye ñoom loolu dong lañ ko façon yéenee faje bàyyi ba booba ñu dem wate léegi yañ la doon xañ di la ko xañ di la ko xañ di la ko xañ ak ñàkk respecté kàddu yaag wax ya dañoo agsi ba ca loola itam bokk ca la nga xamante ne respecté wuñ ko faf respecté wuñ ko faf mu jëm ca puus ak àndal ak euh, euh, xaw ma reporté ak euh, maanaam fomm ak ñu waxtaane waat kook ñu jalooge waat kook yooyu yëpp dara day da caa leerut te dara da caa dëppoowut ak li nga xamante ne mooy njàngalem diine ak sérieux gi nga xam ne moo ci am ak loo xam ne aw askan dañ caa ànd moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne innakum sa taxrisuuna ala al imaarati wa sa takuunu nadaamatan yowma alqiyaamati fa nima al murdiatu wa bisat al fatimatu waaw a ngi xir bëgg nguur bëgg lool ay post ak yi nga xam ne moo ci aju te rëccu dong la indi ëllëg yowmal xiyaam rëccu gu metti regret yu metti yàlla nañ ci yàlla musal mu ne nguur daa neex lool booy falu da ngay mel ne kuy nàmp mu neex lool waaye booy folleeku day soof lool ba mel ne koo xamante ne nii dañ laa feral yàlla nañu yàlla defal jàmm ci réew mi yàlla na ko yàlla def ci réew yi ñu wër yàlla nag du defal kenn lum man waaye aw nit ñooy góorgóorlu defal seen bopp liñ man lépp lañ mënut suñ borom subxanahu wa taala defal leen ko.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 wa barakaatu.